suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen euh, dalal ci seen télévision nationale RTS di leen dalal fii ci Ndar ñu nekk ci booru dex gi ak booru pont Federbe euh, mbéex mi di ñu upp mu nekk euh, climat bu neex a neex Ndar di dëkk tamit boo xam ne nii dëkk bu bu bu neex a neex la saa buñ fi ñëwee rek séjour yu neex lañ fi passé RTS nag nekk fi dans le cadre d'une antenne décentralisée ñu ñëw fii ci bisu euh, seetal suñu réew euh, ñu profité ji tamit def ben plateau sport daal di dalal fi ci euh, plateau bi ki nga xamé ni mom moy Mourchid Iyane Ly ancien international bu Sénégal nekone attaquant bu Linguère bu Saint-Louis bu Jaraaf bu Dakar nekone fi tamit bitim rew tay mu nek ci ben académie bu tudd Unifoot Academy mom moy entraîneur U15 yi maanaam yi nga xam amaguñ uh, fukki at ak uh, juróom xalé yoy ngeen di seen uh, sama ginnaw ak seen ay équipement ñu ñëw participer assister ci émission bi nga xamni ni mom lañuy def fi ci Ndar Mourchid ma lay nuyu dila dalal ci suñu plateau. waaw alaykum ma mm-hmm. ngi nuyu ñep di ziar ñep di leen remercier si invitation bi. di leen wax dal leen ak jamm Saint-Louis. ñu fassiyene waxtaan si mbiru football. inshallah inshallah euh, ci sama euh, ma am fa tamit benen ancien international Mamadou Ba alias Van der Sar mom xam ngeen ko tamit bu mu euh, gardien euh, international nekkon équipe nationale bu Sénégal nekkon gardien Linguère bu Saint-Louis nekkon gardien euh, jara jaraaf bu Dakar je pense que yéen ñaar sa daje ngeen tay mu nekk Suisse depuis ay at yu mi ngi Portugal déjà après mu nekk Suisse depuis quelque temps nekk fa entraîneur des gardiens de l'équipe bu ñuy FC Perli mu nekk ci troisième euh, division moom mooy président académie euh, Unifoot euh, Mamadou ñu lay nuyu di am mbégte di ak yow ay at yu merci beaucoup merci beaucoup Mboup trop trop invitation bi aussi ah. waaw man tamit fi wax dëgg ça fait des années ma je suis ma fi trop wax mais alhamdulilah ñëw naa yàggul barki démb waaw tombeel émission bi am nga invité ma ça me fait plaisir wax dëgg yàlla di kontaan di gërëm Mourchid nga xamante ni sama ancien compagnon la Linguère depuis Jaraaf équipe nationale waaw di sant yàlla di sant di sant gërëm RTS di nuyu ñëpp académie bi di leen gërëm di leen sant yi ñëpp quoi merci beaucoup. ma bëggoon a laaj lan moo tax nga taxawal académie fii ci Ndar. waaw euh, en fait bon man dama inspiré au que ni bu ñu man bi ma nekkee xale amoon encadré c'était un peu difficile ñoo doon débrouiller ñu suñu bopp gëm sport gëm football. bon di si ñefee si mbedd mi ci terrain yi bon y dimbali ñu nag ba am ba ñu percé ba ñu génn Sénégal bon ba y ji le ba y ji le sëgal ñu as tuut nga xamante ni ñun war nañ ko yi ma xalaat ni war naa demi a dem encadré xale yi tekk ci loxo yu ma

ci liggéey bi ngeen di amal ab nan ngeen def ba taxawal euh, catégorie yi sûrement ay test yu bari yoo leen def euh, nga wax ñu tuuti rek ci ci liggéey bi fi mu toll nii fan ngeen ci toll. waaw bon comme ni ko Thierno waxee rek. Thierno waxee rek xam nga en fait euh, moo am lu loo xam fàttali nag quoi mais ay amis d'enfance yoo bokkoon même koñ bu ñu dëkk footballandoo ah, ba ñu nekkee xale nekkandoo junior Linguère Daja Jaraaf ba équipe nationale. donc on a longtemps cheminé ensemble quoi léegi nag comme si île bi la ñu màggee. moom moo am idée bi quoi ni pourquoi pas ñu créer benn école football fi nga xam dañu mën a jàppale yi ñu jox leen chance bi nga xam encadrement bi xam ñun amuñu ko woon bon on s'est concerté am na yeneen gars yu nekk si staff bi ñoo ñëpp ay ami d'enfance lañu pratiquement ak suñu quelques grands finalement on a organisé des tests euh, ça fait maintenant trois ans ñu commencé par deux catégories benn bi moins de douze ans beneen bi moins de quinze ans donc je peux dire que depuis trois ans ñi ngi si liggéey bi booy ñi ngi progressé pas facile mais on fait avec les moyens de bord Et inshallah on veut former des professionnels. donc ñaari catégorie ñu am ci académie. Ouais. Mm. et j'imagine que amna talent yu bari parce que ndar de footballeur la. Mm, effectivement potentiel le potentiel est là mais xam nga football même. Je dañu am potentiel donc bon li di li le gannaaw mom beneen affaire la quoi da ngay liggéey bon après un jour ou l'autre tu récolteras les fruits je pense que dinañ form dinañ am ay professionnels quoi. fan ngeen di amale seen ay séance d' entraînement. suñu séance entraînement ñu ngi koy amee stade Abdoulaye Diagne Camp Nord parce que ville la basé am na ay joueurs jëkk dëkk côté sor bi mais comme euh, Unifoot base bi c' est l'île quoi ay amis d' enfance yu bokkoon si il bi moo tax ñu basé foofu mais am na ñu jógee même village environnant Saint-Louis quoi mais pour le moment on s' entraîne au stade Abdoulaye Diagne. kon fi mu ne nii académie bi bon pensionnaires yi ci nekk yëpp. Hmm. ndar lañ dëkk ak li ko wër. exactement jar na tey su ma juumul amoon ngeen ay ay test euh, pour am yenen euh, jour yu ñëw ci biir euh, académie bi effectivement bi ñaata xale ñoom ñoo ci participer waaw tey moom amoon nañu participation plus de ay 150 joueurs 200 presque hein jóge nañ ci région yu région bu nekk am nañ ay jour yu jóge Thiès Dakar Kaolack c' était juste dañu bëgg formé benn catégorie bu bees maanaam des cadets de de 14 15 16 ba 17 ans parce que en fait académie bi dafa participer à participer ay tournois en Europe on nous a invité et si âge bob non fallait que ñu def ay recrutement yu bess pour mën préparer xalé yoy nonu ak ñun ñu jot am ñu ñu formé pour mën participer au Sénégal si si tournoi ñu wara wara wara yu am yu am am Europe te ñun ñun ñu des participer inshallah voilà. est-ce que yéen a ngi xalaat def ay partenariat euh, ay structure yu nekk Sénégal ak yu nekk bitim réew euh, pour gëna euh, pour gëna xam ni moom euh, Unifoot Academy. tout à fait tout à fait ci loolu la ñuy dox boobu ba léegi sax yàlla ñu ngi defal ñu am nañ ci ay partenaires am nañ ay contacts mais comme que maa ngi Europe laa gën a basé partenaires yi euh, wax dëgg yàlla am na ñu nga xamante ni signé naa ñoom ay contrats ay partenaires yoo xamante ni ñoom bëgg nañ ñëw tey dañu waroon accompagner finalement xam nga euh, par contrainte finalement ñu annulé seen billet mais il veut venir voir l'académie xool xale yi xool liggéey bi déjà am nañu ay partenaires yoo xamante ni vraiment ñoom pare nañ pour accompagner ñu parce que nous ñu comme génération foot comme euh, comme jàmbaar lu ñu def aussi ambition d'ici peut-être 5 ans 5 ans maximum 10 ans ñu construire ay école construction. surtout bopp loolu objectif bi sport étude voilà d'ailleurs suñu avons un ñun loolu lañu am nañu am nañu encadrement suivre sur le plan études. parce que nous avons loolu gën focaliser d'ailleurs voilà nous xale ñu ngi suivre ñoom ñëpp seen étude ñoom ñëpp ngi réussir examen c'est une très bonne chose parents yi adhéré nañ ci ci ci ci académie bi et voilà ñu ngi suñu yoon daal ñu ngi suñu yoon ñu ngi suñu yoon mm-hmm. Mourchid yow attaquant nga won yow nekkon nga meilleur buteuru championnat bi ligue 1 suma joomul ligue pro bi yow ya ci ñëk nekk meilleur buteur nekk attaquant euh, légui nga nekk entraîneur euh nan nga switché entre les deux ak ce nouveau métier bi suma ko mënee waxee non nouveau rôle bi nga am ci ci football bi en tant qu'entraîneur nan nga koy dundé waaw bon je pense que depuis bi ma nekkee footballeur. man j'ai toujours été curieux quoi. Amara daf ko daan wax quoi Amara moom nekk Linguère. Amara Traoré le général ma tu tu poses beaucoup de questions. boobu xam naa peut-être jeunes yi ñoo nekkoon su man quoi ak passion bi. donc aussi ñun si loxo yi ñu jaar aussi par ñoom Amara am na yeneen coach ay Boly Ndiaye ay coach David coach Job mu ma limee jum quoi Ibrahima Diop Pëlle bëgg ma sax sinon mun naa jum quoi ñooñu ñoo ma formé en tant que attaquant. léegi nag loolu ma jàng si ñoom ak sama expérience ma am à travers équipe nationale xam nga championnat extérieur yi loolu laa bëgg tamit transférer si boy yi jàppal leen parce que jour le jour il a besoin d'être guidé pour mu mën a réussir parce que da am potentiel léegi potentiel bi li kay génne clé bi li kay génne si ay conseil la si ay entraînement spécifique donc à travers notre vécu bëgg nañu vraiment jappale boy ba un jour l'autre ñu créer ay produits yo xam au moins bu ñu leen gisee daañu am satisfaction. nekkoon nga jour tay ngay entraîneur. ban moo gën a jafe. je pense que entraîneur moo gën a jafe. parce que entraîneur c' est le travail de l'ombre xam nga jour jour moo nekk spotlight bi quoi jour moom bu doxee jour la ñuy wax mais si ça ne marche pas entraîneur la ñuy wax mais entraîneur nekk na loo xam ne c' est vingt heures sur vingt quatre jours sur sept. même bu entraînement jeexee yaa ngi xalaat lan ban séance nga war def suba jour mi ngi récupéré chaque fois daal yaa ngi jéem a wut ay solution mi ngi noonu daal donc entraîneur pour man c'est plus difficile. premier tour euh, premier point yi ñuy abordé euh, ci euh, plateau spécial bi moo nekkoon forcément Unifoot académie wante mënu ma leen am en face duma leen laaj loo leen xalaat ci situation Linguère bu Saint-Louis muy club boo xam ne nii am na lu mu joué ci seen carrière Mamadou Ba Linguère suma ma 2007 la mujjee gagné coupe du Sénégal 2009 mu nek champion mais bobu ba tey gis nañ ni club bi ci ay jafé jafé la nek amna saison yo xamni sax Linger tout était mu mu wàcc Linguère d'ailleurs amna président bu bees parce que Amara Traoré quitté na li nga xamni mom moy présidence bi yow lan ban xalat nga am ci présidence ci euh, situation l'inger tay en tant que ancien joueur. waaw man mom euh, comme li ma wax rek euh, man ngi koy bind sama page Facebook la dernière fois bu ma gisee Amara Amara sa démission. Euh, que ni Amara moment bu muy démissionné pour man la ko Linguère gën a parce que instant bi Linguère dafa soxla tous ses dignes fils comme Amara Traoré comme man comme Mourchid comme tout le monde parce que limay wax moy équipe euh benn nit mënul gérer équipe fu mu toll football fu mu toll tay jini dañu soxla doole ñep pour ñu mëna organiser pour mëna créer ben équipe bu am doole parce que même Amara bu démé ké ñom mom kessé à tout ça il peut rien faire donc euh, Linguère dafa yag nek ci ay problèmes nek ci ay difficultés de loin maa ngi xool résultat yi maa ngi évolution sur le plan organisationnel Amara ñëw na apporté na mais dafa des Amara à tout ça il peut rien faire man proposé naa waxtaan ak plusieurs fois Amara Traoré que nañu organiser wu xool na ñu mën a regrouper tout le monde pour ñëpp dugal seen loxo parce que Linguère moo ñuy formé fan nañu jaar fan nañu déparé na ñu mën xool nañu mën a Linguère pour mu mën a évoluer ba faw parce que tout man équipe bam ambition war na mën a yaatal ba ñëpp mën ci dugg dugal seen loxo pour mën am ay résultats Mourchid yow pour yow euh, Linguère tey jafe-jafe yi moo am nii lan moo ko indi. bon man je pense que euh, dafa am division quoi entre Saint-Louisiens yi Linguère pour man dafa soxla unité parce que quoi qu'on dise Ndar manque de ressource quoi Saint-Louis bëri na ressources que ce soit ressources humaines ressources financières mais foog ñu booloo nekk benn Amara euh, bon ce n'est pas parce que c'était mot coach mais je pense que c'était un incontournable si sport Saint-Louisien de personnes son vécu daf na mën a man am nga jaar na au niveau am na ñeneen aussi ñoo xam ne mën nañu apporter je pense que dañu war a toog sur la table ñu xool nan la ñu boolooyee toutes les forces. bu ñu ko defee je pense que dinañ dem quoi mais comme li Thierry wax modèle bi lumière nekk dafa war a changer poche poche président yoratul équipe. mais loolu club Sénégal yëpp daanaka loolu la ñuy dund. waaw ah. ah, mais mais mais je peux dire une chose boo xoolee euh, équipe traditionnelle léegi yéen amatul doole à part Jaraaf. te Jaraaf dafa am ay ressources. Mm. n'est-ce pas jaraaf dafa mel jaraaf rek moo fi mais étranger ñëpp daal nañ modèle bi ñuy suivre la ay ay génération foot jàmbaar dañu am partenariat ak européen yi mais boo xoolee équipe traditionnelle bi instant dañu am ay problème ay njàmbur euh, GA ñoo ñoo nekkoon force équipe championnat Sénégal mais ñëpp dañ daanu parce que modèle boobu moo changé modèle économique bi parce que football léegi dafa dafa laaj ay moyens donc poste président mënatul yor équipe donc foog gars yi changé seen ay statut réviser waat texte yi xool neneen neneen ni ko organiser pour affaire mun a dem kanam ba pare am appui état bi aussi. c'est ça euh, Mamadou Ba certainement yow yaa ngi suivre foot local bi de loin. Mm-hmm. Euh, est-ce que jàpp nga ni am na évolution bu ci am. Mm-hmm. surtout Ligue Pro bi. Euh, comparativement ak période bi nga xam ne yéen yéen a ngi nekkoon Sénégal di jouer. waaye tout à fait je waaye am na évolution bu baax sur le plan tactique bi may seetaan sur le plan jeu joueurs yi évolué nañ par rapport ak ñun peut-être suñu temps bu ñuy jouer bon du ma ne du ma ne du ma aspect technique bi euh, tactique trop mais là j'ai vu que ni évolution amna parce que su may seetaan jaraaf tey may seetaan Tëngéej FC gis naa ni wax dëgg yàlla ñu ngi jouer ñu ngi jouer xalé technique tactiquement évolué nañu te lolu c'est une avancement wax deug yalla pour pour football xalé parce que bo seetloo tay xalé bu ci génn tay bu démé rek day ñëw rek bokk sur le plan euh, en Europe. Mhm. ça veut dire que ni travail de base bi am na quoi. Mhm. parce que joueur yu bari dañuy jouer Ligue 1 Sénégal waaw après transféré ils sont en première division dans beaucoup de pays il y a 15 ans cela la dafa ont am mm. mais un homme. Mais évolué entraîneur yi évoluer xam-xam entraîneur rek quoi mm-hmm. voilà mm-hmm. Euh, championnat Sénégal bon c'est vrai que année passée c'était un peu à l'écart mais donc comme le Mamadou bon le professionnel carrément mais moi, par rapport à ce temps c'est différent mais aussi sur le championnat je pense que le problème est compétitif par rapport à ce championnat sur le plan financier parce que tu es le meilleur buteur tu es obligé d'aller à l'extérieur Pour pour championnat le niveau faut que nous puissions conserver sur jours les meilleurs talents mais à chaque fois les meilleurs ils partent parce que aussi financièrement ça ne suit pas moyen ils suivre donc forcément tey bu ma nekkee maire même bu ma woon Gambie mu ëpp xaalis sax dootuma xool numéro may dem parce que quoi qu'on dise gars yi ah, xaalis moo leen jiital quoi. Mm-hmm. donc Sénégal foog ñu fexe ba mun a retenir les meilleurs jours cette année boo retenir les meilleurs cinq meilleurs jours yi beneen année bi cinq meilleurs jours fekk si kat ñu def noonu après dañuy am benn niveau boo xam ne c'est très élevé. pour man loolu nan lañ mën a def ba retenir ces meilleurs jours là loolu moom mooy question bi. bon mooy li ma wax je pense que parce que boo demee ay Maroc ak yenn pays seen championnat bu ñu koy professionnaliser dafa am appui état bi état def si defal ay milliards. lolu xoolal mënul c'est incontournable boo si defal ay milliards du dem. football moo laaj loolu. mais mënoo ñëw nga nek joueur championnat may fay 200000 madame Rwanda ñu fay mark 500000 cent mille damay dem. Mhm. loolu situation économique lolu la quoi. accompagnement foog pour niveau bi yok faut retenir les meilleurs. mais yow xam nga li may wax chaque année les meilleurs dañuy dem. Mhm. ça c'est vrai dañuy vidéo du talent. Mhm. donc niveau bi du kii. normal loolu mooy problème championnat bi quoi. Mm-hmm. léegi nag gars yi xam nañu solution bi quoi nañ si jóglu rek. Mm-hmm. maintenant dañuy ñëwaat tuuti si seen carrière yéen en tant que en tan que en tant que footballeur Mamadou yow instant bi yaa ngi nekk euh, entraîneur gardien à Perli. FC Perli entraîneur normal. a ah, D3. <laughs> waaw ah léegi euh, ce ce rôle là ça doit pas être évident. Mm-hmm. bëri na luñ koy gis ci suñu suñu réew waaw waaw man dama dama préparé sama reconversion de bu ma commencé sama champion euh, carrière euh, au Portugal dafa jeex rek tag ma ma ma déménagé dem Suisse pour préparer sama diplôme d'entraîneur pour préparer pour pour reconversion comme entraîneur principal ci équipe d'ailleurs actuellement man donc la précision est importante. c'est entraîneur entraîneur normal entraîneur normal waaw. Ah, au ah, lieu entraîneur de gardien déjà déjà am naa am mm-hmm. euh, voilà en Suisse maa mangi, gor ngi la sama côté bobu nonou yor naa fa équipe normale sud 15 ba xamanteni def naa fa ay résultats yi tamit am solo wax deug yalla progression la ci man en tant que entraîneur en tant que ancien joueur mangi évoluer doucement quoi mangi évoluer doucement. maa ambition bi ñëw un jour nek entraîneur équipe nationale A bu Sénégal. wa mais lolu xam nga fay nek lolu loolu sóoruguma ko léegi quoi. Mm. parce que dama bëgg topp yoon bi. Mm. jaar am sama diplôme yëpp comme ni ma waree. Mm. après nag doogay song nag ñibbi si Sénégal parce que nama ma Sénégal nag bi quoi. <laughs> yow mais bala may ñëw bëgg naa am sama diplôme yëpp comme il faut quoi vraiment. te maa ngi a a baax wax dëgg yàlla. ci sa carrière footballeur bu ñu jeter yan période ñoo la ci gën a marqué. ah non période bi mu nekk jaraaf parce que jaraaf maanaam. Euh, li ma dund lu ci lu ma gën a ci football jaraaf la quoi jaraaf la waaw jaraaf moom passé naa fa huit ans yoo xamante ni c'est extraordinaire euh, période période bi championnat en 2009, c'était magnifique wax dëgg yàlla. 2010 2010 voilà parce que trophée dafa bëri jaraaf ba nga xamante ne xamatu ba. waaw ñaari tali la waaw la fameuse waaw waaw waaw jaraaf sama kër la foofu wax dëgg yàlla a énormément de respect bon Cheikh Seck sama président la ñuy déggante tout le temps dirigeant yi moom foofu sama kër la daal jaraaf moo doomu jaraaf laa wax dëgg yàlla Linguère si laa bokk ñu ma formé mais doomu jaraaf laa. ça c'est au plan local. sur <laughs> le plan local au plan international ñu fàttali ne woon nga Portugal aussi. waay waaw après bu ma génnee Sénégal bon euh, Boavista la signé. Mm. club bu mag aussi tamit Portugal. nekk fa trois ans joué évolué fa tamit gën fa apprendre gën a progressé jàng fa lu bëri ci wàllum football.

dañuy lu ñu lu ñu jël suñu expérience ñu ñu séddoo ko xale yi daal. Ah. voilà yow Mourchid yan mooy sa période marquante yi nga mën a ci sa carrière de footballeur. waaw bon au niveau local forcément Linger la parce que bon avant Linger, maa ngi woon Foot Center bien vrai que jël naa foofu meilleur buteur deuxième division troisième division Linguère laa jëlee meilleur buteur première division ak meilleur joueur en même temps mais li tax mu marqué ma. Ligue 2 ak Ligue 3. waaw meilleur buteur Ligue 1. ak meilleur buteur. Ligue 2 ak Ligue 3. ah sama chance mooy. man dama échelonné quoi quatre divisions yëpp laa football dama ah. ba kii quoi. ah ça c'est une sacrée performance parce que mu nekkee Saint-Louis Centre. dañu bu nekk benn année lañu fay def yëpp. Mhm. ba ñu nee deuxième division après cela am Linguère quoi. Mhm. mais Linguère li tax mu marqué ma bon dafa am benn période boo xam ne Linguère dafa demoon bay mel na comme Gia en fait mun nañu wax dafa doon suur quoi suñu génération bu ñu ñëwee. ñu jël coupe du Sénégal jël championnat en même temps C'est c'était la premier titre champion bi li ngeen jël quoi mm-hmm. donc forcément dafay marqué mm-hmm. bon plan international euh, Syrie Syrie dama fa jël coupe d'Asie des clubs avec ak club bu en 2010 donc bon parce que mën naa wax équivalent coupe CAF la woon Europa League donc forcément loolu marqué na ma quoi mm-hmm. coupe continentale la woon ñu ñëwaat Saint-Louis ñu gis ni dëkk la boo xam football la loolu ñëpp xam nañ ko mais au plan infrastructurel ñu gis ni am na ay jafe-jafe man bi ma gisee image au stade maître euh, Babacar Sey ça ça m'a fait trop mal. c'est déplorable et vous en tant que saint lusien situation boobu nan ngeen koy déglu. non c'est c'est terrible man tay fala laa tay tey suba. Ah. mais dama ni non li mom euh, du pour football quoi peut-être mën nga jël bon jardin la jardin la quoi pour nit ñi di tok noppalu quoi mais du pour football parce que déjà terrain bi mo lay gagne euh, c'est vraiment c'est triste man dama dugg terrain dama triste quoi parce que gëj naa dund lii xamatuma kagn la quoi vraiment terrain bi terrain bi mom du pour football et puis autorité yi maa leen lancer appel mu nu mu gëné a gaaw ñu terrain pour la ville de Saint-Louis parce que mérité nañu am terrain digne de ce nom benn terrain doyul pour Saint-Louis parce que y' a beaucoup de talent y' a beaucoup de joueurs y' a beaucoup de jeunes ben terrain euh, doyul parce que am nañu terrain bu nekk fi sur place euh, maître Babacar Seye ñun ñëpp fa la ñu màggee fa la ñu suñu formation terrain bi tey dafa délabré ñu ngi woo ñu lancer un appel les gouvernants ñu ñëw jàppale ñu wutal ñu terrain structure digne de son nom ba suñuy suñu ay doom suñu ay rek mën évoluer comme nous voulons quoi parce que Saint-Louis le mérite. Mourchid mérite euh, euh, qui lâche un mot Mamadou Mamadou Ba euh, Saint-Louis war am stade un stade digne de son nom. mais stade met Babacar Seye tey ku ko bu ba gis image yi tey di nga am lool. oui ce qui est plus grave mooy Me Babacar Sey, foofu la ñu bindee les plus belles pages de l'histoire du football Saint-Louisien ñep xam nañ ko. ouais man limay ma def falaa ko defee kii fa la football junior ak ñeneen ak ñeneen. fa la lepp xew quoi donc xam nga c'est indigne quoi c'est louis moom warul am lu melni parce que footballeur ñaar outil la am le terrain ak le ballon le terrain ak le ballon moom am comme outil. Mm-hmm. mais joueurs pour ñu progresser aussi faut ñu football ci terrain yu baax. Mm-hmm. man je pense c'est pas seulement c'est louis dafa tomber parce que ben stade la ñam mais la question qu'on doit se poser stade bi régionaux yi ñu defaroon. yu bëri yàqu nañu donc y a problème d' aussi parce que stade itam boo amul entretien day gaaw yàqu mais daal football moom bu ñu bëggee mu développé foog nga am infrastructure yu baax terrain yu baax bal yu bëri mooy yu suivre financièrement joué seen xel dal ñun parce que Sénégal équipe nationale mi ngi def ay résultats mais li ñu naan seen l'arbre cache la forêt si biir biir au niveau local li maanaam liy feeñ si si national bi de suivre bi au niveau sur le sur le long terme ça ça risque de nous rattraper encore quoi parce que Sénégal raw na yeneen pays on est un modèle boo demee ay yenn pays africain dañ naan la le modèle du Sénégal mais nag au niveau local foog gars yi góorgóorlu pour affaire mun a mun a homogène quoi. tudd nga équipe nationale ma bëggoon laaj Mamadou Ba yow noo gisee suñu gaynde yi ak système de jeu bi nga xam ni la Aliou Cissé di teg ci jamono ji gis nañ éliminatoire coupe du monde yi euh, niñ ko ak surtout nul bi ñu def fii RDC euh, bërki démb def nañ ci rajo sooru tamit éliminatoire Coupe d'Afrique bi ñu wara a bokk ak poule Burkina Faso ak équipe bu melni ni euh, Malawi. yow ban jàngat nga am ci. waaye bah, c'est un peu compliqué parce que Sénégal daf ñu yéegee bari ba ci kaw on est on est champion d'Afrique à un moment donné. légui nak euh, pour légui lu gëna a moy nga yégg ba ci kaw taxaw fa euh ak potentiel Sénégal bu mu am potentiel bu ñu am wax dëgg yàlla ñu war nañu yeneen équipe war nañu taxaw ak ñoom man sama gis-gis quoi On chercher les médias à 14 heures quoi parce que le football léegi résultat nañu soxla résultat tu gagnes les matchs comme il le faut parce que Sénégalais ñun dañu bëgg le beau jeu te À ce moment là on a on a des difficultés il faut le dire sur le plan technique sur le plan tactique ak potentiel joueur yi ñu war a am war nañu produire football bu gën l'air. leer bu ñu bu ñu quoi parce que boo xoolee suñu joueurs yi Sadio Mané il l'a dit on est tous d'accord avec lui Sénégal lu ñu lu ñu yor waneeguñ ko ba léegi quoi te on peut faire plus on l'a démontré à plusieurs fois mais voilà les gens lu ci des mooy ñu confirmer tout le temps De confirmer dafa metti pour man euh, bon a des critique mais c'est juste que ni avons dañ ci bokk dañ ci bu am suñu on lui conseille de découvrir tout le monde pour que affaire yi quoi parce que ci ñun a bokk quoi voilà. Mourchid yow loo xalaat ci 3-5-2 bi. bon 3-5-2 man man bon sama sama sama principe. Mm. football tant que yaa ngi teg sa système. Mm. di jàkkaarloo góol bi de rater. système pour moi. système bi baax na baax na par Sénégal on ra mais boo ko doon dugal tamit moo gën de waaw mais dugal bi c'est les jours man man foofu laa gisee quoi sérieusement bon aussi yaa yaa une chose dafa am lu ñuy fàtte quoi Sénégal ñu ngi si continuer continuité mais en même temps ñu ngi si transition parce que am na lu bëri luy changé jour yeeg comment dirais-je homme de base yi donc ça peut prendre un peu de temps pour affaire bi mun a mun a wat quoi waaw mais aussi bon c'est vrai que course même chaque fois il y a des choses à, améliorer quoi. Mm. mais man pour man li tax mu 3 5 de derrière moi c'était par rapport à disponibilité joueurs yi ma quoi avec yenn blessures et gis quoi pour moi c'est ce mu mu insisté si loolu quoi. loolu laa gis waaw. Hmm. léegi dañuy jeexal ak euro bi Ba bëgg na xam euh, résultat Suisse Angleterre. Euh, mais malheureusement Suisse éliminé nañ ko Angleterre moo gagner gagné au tir au but. 5 euh, à 3. Euh, ci 120 minutes yi ñaari équipe bi dañu nekkoon à égalité un but partout. premier commentaire ci euro bi nga xamni Suisse def na ko ren. waaw def nañu compétition bu baax nag euh, voilà man yaakaaroon tey dañuy quoi parce que ils étaient en tellement en confiance que ni euro bi seen euro la quoi parce que en plus Allemagne daf leen a bon voilà presque même pays la mais Suisse wax dëgg depuis un certain temps ñi ngi progressé bu baax ak génération bu jóg bi ma gis foofu. ñi ngi ñi ngi progressé bu baax baax baax après et puis jeunes ils sont ils euh, ont pris en confiance je pense que nous heure ah, yii compétition sur le plan européen dinañu exister favori pour la victoire finale ñu jeexale ak yow. France. France pourquoi parce que France c'est des compétiteurs né quoi en général quand ils ne sont pas très bien dans le jeu dañuy sox ba sore. Mhm. boo xoolee 2004 non 2006 ak xam ban 2018 2018. waaw doo mais. avant sûrement lentement mais bien gars c'est des compétiteurs né waaw ah. waaw Mourchid Yane Ly maa ngi lay jaajëfal ma fatali ni yow entraîneur U15 euh, Unifoot Academy ancien international ancien joueur de la ligue du Jaraaf. Mhm. Euh, Mamadou Ba mom moy président académie bi Mamadou ñu ngi lay nuyu aussi di la merci ci disponibilité bi nekkoon gardien de but Linguère bu Saint-Louis. équipe nationale du Sénégal. Jaraaf nekk entraîneur ci Suisse. ci FC Perli troisième division. di jaajëfal tamit ñi nekk sama ginnaaw. Euh, di xale yi nga xam ne ñoo nekk ci Unifoot euh, Academy di jaajëfal yi tamit euh, équipe technique bi nga xam ne nii moom la ci plateau spécial bi Oumar Ndiaye nekkoon ci réalisation bi ñu koy remercier ak équipe bépp bi nga xam ne ànd ànd naa ci liggéey bi yéen ñi seetaan RTS tamit ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox. Euh, dig daje ci yeneeni jotaayu Tagat yaram ci seen télévision nationale seen émission dañ kumpa ak Ismaïla Diop di dalal Cheikh Bara Ndiaye. Euh, sunu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu tey am biir émission dañ kumpa ñu am mbégte nga bokk ci ñi ñu njëkk a dalal ginnaaw bi ñu reprendre émission bi Cheikh baara moo changé am RTS moo sàppeeku. Cheikh Bara changé wul euh, RTS changé wul mais yàlla mooy kiimaan. ci wàllu politique bi. xam nga lu mi dina Kër Massar Pastef am na ay seer.